professeur Aboubacar Mohamed Abou Souer euh, dafa ñëw moom mooy doyen yu faculté appel mon appel islamique mondial muy benn université bu rëy bu nekk biir Libye Tripoli nee dafa ñëw tey ci Touba ngir ziyaare si dëkk bu sell bi waaye am ak jataay ay waa université bi waaye surtout nag si ñeek ñoom benn convention de partenariat ci seen diggante nga xam ne day ubbi buntu yaatu yaatu ci dimbaleen te diggante ñaari université yi tudd na fi ay domaines yu baree bare bokk na ci ñuy seq ay jataay waxtaan xam-xam def ay eh, ay nadawaat maanaam ay forum ak ay séminaire yoo xam ne ci wàll formation renforcement capacité enseignant yi ci lay jëm waaye di weccee ay étudiants ay étudiants di jóge fii di dem libi di fa jàng te loolu déjà fekkoon na ko ci waaye it nag di wecc ay documents ak jàppalante ci wàll yu bare bare ci wàllu waaye moom dikkam fii ñu ko sëñ bi waxee sànq daal fekk jàppalante bi amoon ba noppi ndax fii nuy wax ak yéen ab lim bu takku ña nga fay bindu ci université bi di def seen thèse doctorale te yombal gi ci ñoom ñu la jóge tey nag loolu la ñëwoon jàppalante boobu la ñëwoon ngir jëmmal ko te nee ciy seentu daal aw yiw bu baree bari ak i njariñ ñaari université man na ku ñuy wax professeur Mor Faye man maay coordonnateur nekk aussi euh, président du conseil académique université Cheikh Ahmadou Khadim ci biir complexe Cheikh Ahmadou Khadim bi nga xam ni nii sëñ Ahmadou yu Mbacké moo ko jiite waaw tey nag euh, dañoo moon benn jotaay bu am solo bokk kay ay naatango université libyen ñu jóge euh, benn université bu ñuy wax faculté de l'appel islamique mondial ñoo ñëwoon fii ñu signé ak convention ak ñoom les conventions bi nag signé bi euh, wanewul ni euh, dañuy doog a door euh, dañu wanewu ko ndaxte avant ñu signé convention bi tamit seq nañ ñu baree bari bari ci domaine scientifique notamment ay ñoo xam ne ay étudiants lañu woon fii def seen doctorat foofu ba sunir ak ñoo xam ni tamit ñu ngi ñoom tamit di def seen doctorat donc li ñu bind li ñuy xaatim tey day loo xam dafa gën a jëmmal rek loo xam ni am na léegi nag li ñu mën a xaaree ci ci convention bi lu bari la euh, tàmbali naa ci sax mooy euh, di dafay encadrement ay étudiants en thèse ak ay mémoire ak yeneen mais tamit aussi euh, di di di gëstu di xalaat ci yu baree bari def ay colloque au niveau national sous-régional au niveau continental jëmale ko ci affaire u diine ak affaire yeneen xeetu xam-xam te muy loo xam ne nii moom luy jëmal université la bokk loolu bëgg nañ koo def très prochainement ak aussi tamit ci waxtaan wi tamit euh, ñoom war nañ seen disposition aussi accompagner li ño Cheikh ci li ñuy wax euh, enseignement à distance daal façon jàngale boo xam ni euh, laajut kiy jàngale teew ak ñii teew may mu ne ko ci xarale yu bees nañ ko jaare ordinateur yi ak informatique bi ak internet bi ñoom tamit boo nañ seen seen daal seen disposition daal accompagner université Cheikh Amadou Khadim ak yeneen ak yeneen domaine daal yoo xam ne di Euh, daal am nañ ci yaakaar comme aussi ni ci amoon yaakaar ci euh, convention yi ñu signé woon ak yeneen université loolu day convention yi bu montré daal ni université Ahmadou Khadim dañu si boo xam ne nii dafa samp ci ay aada l'islam aada murit ba pare aussi di aussi euh, université boo xam tamit day tijjeeku ndaxte université li koy aussi gën a jëmbat li ko gën a cëral jox ko ay gëdd mooy li ñu wax coopération interuniversitaire donc li jëm tey muy loolu daal la wone gi ngeen ci ginnaaw am na ay ay ni signé ak université Cheikh Anta Diop def nañ ko université Assane Seck de Ziguinchor def nañ ko ak Alioune Diop de Bambey def nañ ko ak yeneen université yoo xam ne ak ONFP ci affaire formation professionnelle ak bu ñu signé tey ak yeneen yoo xam def nañ ko ak ligue euh, des universités islamiques yoo xam ne nii mooy lëkkale université islamique du monde du monde islamique ak aussi yu bare bare yi nga xam ne donc université bi day wane nii daal euh, day mu ngi xool ci biir mais aussi mi ngi xool ci biti ndaxte lëkkaloo yeneen université yi moo tax euh, aussi euh, ñu mën a avancer ndaxte université yi lëkkaloo am na lu ñu am ñoom te amuñu ko ñun tamit am lu ñu am te amuñu ko ñoom ak lu ñu xam te xamuñu ko wala ñu xam loo xam ñoom tamit xamuñu ko donc coopération bi maam daal di ko yoral mooy ay convention de gën a retaxal diggante yi ndax pour njàng mi gën a am solo njàng ma gën a am qualité ndaxte aussi euh, li nga ci yëngatu yëpp li ko tax a jóg moom mooy njàng mi njàng moo tax yëpp di am kon donc euh, dañu am ci convention bu yaakaar daal te jàpp nañu daal dina dina mën a dina mën a daal satisfaire li ñu ci xalaat xalaat daal ak li ñu xaar wasalaam